na comme ni nga ko gisee rek euh, Sadio ak Salah ay coéquipier wu Liverpool lañ mës a nekk. waaw mais cette fois yàlla dafa dogal ñoom ñaar seen confrontation. naka nga gisee seen confrontation ci biir terrain bi. Euh, te aussi am na ñaari occasion benn occasion bi Sénégal amoon te Sadio Mané dugal bii bi même occasion boobu répété wu na ci diggante euh, Sénégal ak Égypte te Salah marqué wul bii boobu. oui oui alors gis nga Sadio Mané man footballeur laa dama koy traité comme footballeur man footballeur laa woon yoon wi mu yéeg gagné coupe d'Afrique bi jéem naa ko gagné ma je di à quelqu'un quand nous sommes allés à notre première CAN j'étais de la présélection du Sénégal je n'ai pas été retenu dans la sélection kon tey jii Sadio Mané daf ñu fajal daan dafa fomp suñu rangoñ mais il y a semaine parce que dafa am ñaari penalty yu wane kan mooy Sadio Mané il rate le premier il marque le deuxième qui était plus difficile <laughs> le deuxième était plus difficile xam nga pourquoi mu difficile woon dugal gagné la woon alors que le premier du match penalty boobu derrière amul benn perspective da ngay mën a rek au score la preuve raté na ko ñu continuer match bi mais deuxième bi su ko raté woon peut dañuy perdre finale bi boobu la dugal loolu mooy lan dafa des muy jouer en leader lii may def kenn mënu ma ko tee def j'ai vu contre le Togo adversaire bi jël ko ciblé ko programme gaañ ko ba génne ko daf ko gaañ ba génne ko te moo du gaañ bi mu ko gaañ dafa bàyyi ba Sadio Sadio di daw mu dàq ko janoog moom fiir ko donc dafa programme gaañ bi alors yenn modu gaañu yi jour bu mag dafay bañ di ko gaañu alors Sadio ni mu fippoo ci deuxième penalty bi su ko fippoo woon ci premier penalty bi ñu teel gagné final bi parce que Égypte bu ñu ko teeloon dugal 1-0 dana jël au moins beneen but opposition Sadio ak Salah mais Salah poussoon na ko vers un mauvais ci penalty bu njëkk bi Mohamed Salah vient parler à son gardien Sadio Mané lu mu fay wut daf ko tooñ Sadio foofu moo tooñ Salah ne parle pas à un Sénégalais il est égyptien il est capitaine de l'équipe d'Égypte il parle à son gardien de but Sadio Mané fekk leen fa ñuy wax ñoom ñaar naan gardien bi eh demal si kaw. on dirait que Salah da ko doon expliquer. tactique yi mu xam ci Sadio Mané dafa doon dafa doon énervé même su fekkee ni mu ngi wax dara mais loolu muy wax taxul pénal ma yàgg nga wax gardien bi fii lay tóori te fii lay dóor c'est tellement juste que Sadio penalty bi mu raté deuxième bi même angle la ko def dafa dolli vitesse wàcc ko bi dugg saajo dafa dolli vitesse ci bës bi ba pare gën a wàcce balon bi bu defoon noonu ci bu njëkk ba dañuy gañ c'est-à-dire ça ça sera croire que Sadio dafa yéex fippu alors noonu lay duggee ci match en dilettante. mais li nga wax ni moom moo tooñ sala ci ba mu ñëwee loolu moom moo tax mu raté pénalité bi. mais sa benn explication. ci la bokk daf lay déconcentré. daf lay déconcentré parce que gis nga ci boobu instant. tu as besoin de tout oublier. tu le vide. même arbitre bi la tooñoon. ci faute bu mu wax tu parce que c'est un geste de nerf. tant que am nga koo mere wala koo xulool doo ko réussir. tu oublies tout. Sadio bu toogoon fu mu toog rek bàyyi Salah a gardien di wax def koy dugal il s'est déconcentré tout seul des choses du genre lui arriveront parce que dafa nekk ci diggante bon joueur et grand joueur Sadio dafa nekk ci diggante bon joueur ak grand joueur war ci mën passer très rapidement et là d'ailleurs ce n'est plus le footballeur mais c'est l'homme dafa toll fu nga xamee ni le footballeur doit être à la remorque de l'homme voilà comment on devient grand footballeur sorewu ko mais defa di encore dafa xaleele dootul xaleel trop ah mais dafa xaleele parce que il a été vice champion d'Europe il a été champion d'Europe ah, ah, vivre na sensation yu tax léegi il doit avoir atteint l'âge de la maturité alors toll na nag foo xamee ni il a gagné son match Parce qu'il est champion d'Afrique. Il a marqué plus de buts que Salah. Je crois que Salah a marqué deux, Sadio a marqué trois. Et puis, fi mu ko gagné gagné bi gën metti mais Sadio Mané est retenu, désigné ou élu meilleur footballeur de la CAN. Il n'y a pas plus grande victoire que ça. 24 pays daje fa ñu la tu es mais le meilleur footballeur dafa gën valider. euh, sa grande victoire parce qu'il a eu une grande victoire mais dañuy jëm ci échéance yu gën a kawe ils nous ont menacé nee ñu ngi ñu ngi ñuy xaar ci qualification coupe du monde bi ak mam dem coupe du monde parce que la prochaine coupe du monde Qatar équipe bu Afrique war na dem ba demi-finale waaw coupe du monde bi après nañ ci ñëw incha allah euh, dafa mel ni say wax da nga ni euh, Mané moom moo moo dominé Salah ci seen confrontation ci coupe d' Afrique bi waaye ñu gis ni nag euh, Sadio maane ba mu raté premier penalty bi dafa am état d' bu mu doon demee on dirait qu'il était enragé on dirait te on dirait que dafa nekkoon gaynde bu xiif ci diggu terrain bi. cest gis nga bi mu ko raté ba pare dafa nekk dans un trou na nga xoolaat image yi gis nga bi mu ko ba pare gestu na public bi seen seen seen seen soutien wutaatal image bi bu mu ratee penalty bi ba pare gestu na public bi di yëkkati loxo yi di def. li ñaar encouragé. daf def leen doon. encouragé non dafa doon demander encouragement ci public bi dafa doon demander encouragement dafa doon demander soutien xam nga léeg gis jour bu xool public bi di demander soutien daa gis sax ku koy demander ci corner ci corner sax daa gis jour bu naan. di demander soutien Sadio demandait soutien comme pourquoi aide aidez-moi à oublier le penalty je vais gagner le match moo doon mooy soutien dama ko yërëm ci boobu instant. il était affecté. oui très affecté parce que ci instant boobu ci lay soog a saisir la portée l'importance ou la grandeur de son geste si on avait perdu la finale loolu daf koy topp. Uh-huh. daf koy topp lu yàgg. Sénégalais duñ ko ko baal. daf kay topp. final de coupe d'Afrique tu perds un zéro après avoir raté un penalty daf lay topp. Mm-hmm. daf lay topp alors il était dans un trou. wala bu nekk quelqu'un bu yëg ne mi ngi dem au fond de l'eau il refuse d'être noyé. kuy la ba yëkkati loxo. kuy la yi mooy dernier geste yi loxo lay yëkkati ca kaw. bi muy def nii public bi loolu doon demandé dafa mel que ku ku nekk ci ndox di la. Mais il faut avoir souffert sur un terrain pour lire la souffrance des autres. J'avais pitié de lui. J'avais pitié. Parce que soldat Mayo Dougouchi terrain de souffrir. J'avais pitié de lui. Mais je me suis dit, il a le temps. Ce n'est que la septième minute. Parce que penalty bi troisième minute la. mais septième lañ ko dóor. gisoo léeg-léeg sax ci minutage bi léeg da nga gis euh, minutage bi le penalty c'est à la troisième ñu dóor ko septième. le chronomètre met septième c'est pas la septième c'est la troisième parce que ci ci ci lecture match bi daf ci am importance parce que temps bi ñu sifflé penalty bi dóoraguñ ko palabre à côté à droite conciliabule à gauche mu dañuy avancé te loolu dafay bokk ci arrêt de jeu yi c'est-à-dire arrêt de jeu yi moo tax léegi ci postérité bi tu verras penalty à la septième minute fekk na c'est à la troisième entre trois et 4 dafa am yu fi yu tax match bi arrêté chrono baa daw ci li septième minute. mais Sadio Mané il va tendre vers un très grand footballeur c'est un bon footballeur il devrait être un très grand footballeur parce que léegi il est champion d'Afrique soo ko gisee ci ci alluram il sait qu'il est en de grandir il a battu Salah il est allé même le féliciter à la manière d'un senior vis-à-vis de son junior, par son geste. Il a, même, même, même dans l'encouragement, même dans l'encouragement, il a semblé un tout petit peu l'écraser. Alors, nous sommes à un mois de notre match de Coupe du Monde. À un mois, waaw je te laisse je te moom la ñuy daanee la après ndax dafa mel ni euh, Sadio Mané euh, penalty bi mu raté sax moo nekkoon li gën ndax au début bu ko marqué woon peut-être que dinañu am benn façon naagu ko xawma ni ko olof Ndiaye di waxee naagu loolu tey moom moo ko poussé ba nga xamante ni dafa dem ba sentir ni avenir sénégalais ñoo ngi ci ginnaawam avenir tamit euh, ballon d'or bi ñëpp ñoo ngi ci ginnaawam loolu moom moo ko yokk jom tey ji ba mu daal di dugal daal di marqué but bi